à la magistrature suprême nga def lu ñuy woowee solder les comptes cest à maanaam une reddition des comptes xam nga dama ne sànq am na ay institutions yu nekk ci réew mi mm-hmm. xam naa moom di di nga ma ne kii su ma ko <laughs> su ma ko jaarale gauche rek mu delluwaat à droite donc xam nga dama leen sànq man dama am foi dama am respect pour nos institutions man dama jàpp institutions c'est leur charge d'ailleurs boo xoolee des mêmes programmes yu proposé dama proposé justement que la cour des comptes soit la tête de file des institutions de contrôle des finances de l'État xam nga am cour des comptes am nga IGE am la clim jox beaucoup de moyens pour que justement ñuy saytu les finances publiques au niveau des communes mais aussi au niveau de l'État central donc ces institutions là mais c'est-à-dire boo ñëwee comme ni ko Macky Sall defee woon alalu Sénégal non alalu Sénégal y a des institutions man je suis pas adepte de la chasse aux sorcières par contre je dis les institutions doivent exercer leurs prérogatives et les d'ailleurs j'ai dit que nee naa sànq euh, justice day indépendante donc la cour euh, cour constitutionnelle mooy nekk la clé de voûte mooy président le conseil supérieur de la magistrature euh, eux maintenant dans leur mission boo xam ne état moo ko jox d'être garant de la démocratie d'être garant de également des finances publiques ñoom ñooy jël justement les initiatives qui leur permettent de sécuriser les fonds de l'État parce que le politique n'a rien à faire sur le terrain judiciaire le politique n'a qu'à s'occuper de politique le judiciaire n'a qu'à s'occuper des judiciaires l'Assemblée n'a qu'à s'occuper des lois donc vraiment vraiment soxna Maymouna man euh, je suis pas du tout euh, euh, l'homme politique boo xam ne day jaxase <laughs> comme ni ko xale yi waxee jaxase lii de non exécutif na exécuté judiciaire na jugé législatif na voté des lois alors euh,